ahusbillahi min asheytaani irajim bismillahi irahmani irahim wa inni u'iizuhaa bika wa suriyatahaa min asheytaani irajim rabbi a'uuzu bika min hamazaati shayaatiin wa a'uuzu bika rabbi an yahduruun laa hawla wa laa quwwata illaa billah ñu ngi nuyu mbokki jullit yëpp di nuyu mbokki taalib yëpp di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadoul Mountakha Bachir di ko ñaanal sunu borom may ko fan wu gudd ba lépp lum naa la liggéeyal sëñ Touba mu am ko nam ko bëggee di ñaanal njabootuk Cheikh Abdoul Khader gi di jiital ci bopp bi sëriñ Cheikh moom sëriñ Abdoul Khader ba ci moom Mamadou Bachir képp ku njabootuk sëriñ Abdoul Khader ñu lay jox sa wàccuwaay rawatina kër sëriñ Modou moom sëriñ Abdoul Khader sunu kilifa sunu baay sunu xarit sunu mag sëriñ Cheikh Abdou moom sëriñ Modou Abdoul Khader ak njabootuk sëriñ Modou gépp yàlla na fi yàlla wàcc jàmm ak tawféex ak sutura bu nu sant yàlla di ci sant sunu borom subhanahu wa taala mi nga xam ne di ci sant Cheikh Mouhamadoul Mountakha al Bachir mi nga xam ne naal bi moo ko sumb te naal boo xam ne ni jullit ñépp ñoo ci am mbégte ak tawféex te muy sagum murid murid yi waaye euh, sagum jullit yëpp mu doon naal boo xam ne képp koo xam ne ni kuy sàkku xam-xam nga wala ngay boroom xam-xam wala ngay nit ku baax rek soo xool sedd na ci jëf ji mu jëf ñu ko doon ñaanal yàlla nag mu sumb ko ba noppi it fekk ko yeggale ko te yàlla it may nañu loolu mooy la ëppoon solo mooy ubbi woon nañ ko it mu fekkee it bis ko euh, tàmbali woon nañ ko mu fekkee waxtu wuñ ko ubbi te loolu lañ ko doon ñaanal ndax day act boo xam ne ku xam Seex Mamadul taxa xam fi mu toll ci xam-xam xam fi mu toll ci Sëriñ Tuuba maanaam lu mel ni bu ko sumbee li nga ñaan yàlla mu fekk ko te loolu mel na ne suñ borom dogalee na ko noonu ah, loolu it taxoon na sax bokk na ci li taxoon ñu bëgg a leeral ci mbokki taalibe yi ndax mel na ne jamono day bëgg a soppeeku waaye nag jamono soppeeku ñun ñi suñu jikko mooy bëgg a soppeeku ah, mu doon jëmm joo xam ne na ma ko yàgga waxee rek laa koy waxewaat toppe na lim mën a toppe lépp rafetal na lim mën a rafetal lépp ci waa kër sëñ Touba yi rawante ne waa kër sëriñ Touba yi yëpp ca ñam ci fekk ba ci sëriñ Saliou mi nga xam ne moo mujj ci jamono di ko ñaanal sunu borom doole ko yërmande ak mboolem njabootu sëriñ Touba gi topp Cheikh Mouhamadul Amin Baara ba sunu boroom eh, jële ko fi topp sëriñ Sidi al Maxtaar yàlla ko suñu borom doole yërmande moom topp gu rafet goo xam ne ñëpp teg nañ seen bët mu doon koo xam ne muy ndaw nga walla muy mag sëriñ Muntaxa ko xam xam ko ci jikko ju rafet muy makaarimal axlaaq xàmmewu ndaw gone kum gis sëñ Tuubaa la la jàppe te ñun nga xam ne ay tutànk lañ mën nañ ci sere ah dëkk bi nag dafa am ciy soppeeku yoo xam ne nii mënees naa gis ne ki def li mu war a def loo xam ne bu doon ci ndimbal la dañ ko ci gis mooy université bi ay milliards la mu jaayante ci def ci dooleem ànd ko taalibe Sëñ Tuubaa wane aw yoon wane na murid yi luñ bëgg mën nañ ko def ci ndimbali yaakaar naa am na coow lu fi amoon ba fukki nit ak benn faatu ci mu yëkkati alalam sonn ci def ca lam ca war a def ah lii nga xam ne ni couvre-feu amoon na fi mooy mbas mi nga xam ne ñëwoon na fi mu yëkkati cent millions def ko ci jamono yi suñ mbokki jullit yi nga xam ne dañoo nekk Turquie am ay jafe-jafe mu yëkkati ay cent mil cent millions defaat ci kon kooku xamewul muurit ak tijaan ab jullit la xam ki nga xam ne ni nag ab jullit la xam kooku moom doonu nit ku individuel koo xam ne dafa am ñenn ñoom concerné suñ mun taxaa maanaam jullit ñi jullit yi la la la la la boote àndal di di liggéeyal di liggéeyal sunu borom ak yonent bi sallallahu alayhi rawatina sallam rawatina seexul xadim nga xam ne ni moo ko meññ kooku nag liy wolof naan am loo xamut dana dafa mel ne mi ngi bëgg a dal ci moom waaye nag loolu waxuma la ñun tut tànk yi nga xam ne ni sëti Serigne Touba waaye képp koo xam ne yaa ngi ànd ak moom te bokk ci njabootu Serigne bi war nañ ko ci gën a jàppale noonu yi ko sunu waajuroo di defee mooy Cheikh Mamadou Bassir te loolu it bokk naa ci li li tax ma bëgg koo leeral mooy day mel ne Cheikh Mouhamadoul Bachir buñ na moo yore kàddu murid dafa am ci fu mu cosaano muy Cheikh Mouhamadoul Lamine Bara jaar Cheikh Mouhamadou Serigne Sidi al Mokhtar ñëw ci Cheikh Mouhamadoul Mountakha ku ne doyloo ko ci kàddu ngir mu waxal murid yi bu toogee Serigne Cheikh Mouhamadoul Mountakha toog la may wax Cheikh Mouhamadoul Mountakha ma ngi koy dégg ak ñëpp kon kàddug Serigne Mountakha la day mel ne kon bu waxee ba noppi nit jëlaat wax ja bëgg koo soppi day mel ne sëñ Muntaxa nga bëgg a weddi xamoo noo koy bëgg a weddi nga bëgg ko jaarale ci moom te murit it ndigal nañ daa diglu genn kàddu bu ko sëriñ bi xasee wax amatul kenn ku ca war a xalaat mooy li sëriñ Tuubaa woon ci naxaju te te ni mu war a tegginoo ak ku am kilifa loolu nag war nañoo xoolaat sunu bopp xoolaat sunu diggante ak sëriñ Tuubaa te xoolaat ne cër bu ne ab cër la te ku ne suñ su sëb cër boo yegsee da nga bëgg ku la ko wagaral ku la ko sàmmal te sëriñ Muntaxa jiwuñu woon lii muy jiwut cër bi benn murit jiwu ko kenn kon ku ne rek war nga cee xar sa tànk tubéy ngir li mu yéene liggéeyal sëñ Tuubaa mu am ko na ko bëggee ndax ku ne gis nga nga sa jëmm ci moom ku ne cër ba moo la la ma bam la war a jox jox na la ko mu mel ne dëkk bi nag xar kanam gu yees da ko fee indi te loolu it la sëñ Touba doon ñaan te sëñ Touba lu muy ñaan lu ne ñëw nga tàmbale maa ba dana mel na lu metti waaye bu noppee bu yàggee ñoo xam ne lii la bëggoon yaakaar naa <clears throat> bu fekkee ñun dañ dañoo bëgg suñu dëkk développé ko mel na mu war a mel dafa am foo ko war a liggéeyee tàmbale maa bi fii nag dëkkub sëriñ Touba la dëkkub yërmande la ndax ndimbal yi nga xam ne nii jaaroon na ci marché Ocass bii nga xam ne ni bokk na ci li tax ñu bëgga wax ci appel bi ñuy wax takk na fi ñaata yoon kenn xamu nu mu toll daaw tàkk na ren takk na ñaari tàkk yu gaaw ndax gisoon nga ñu wax ñu wax ci dara dañ ne woon teg ngir yërëm gu mu yërëf mbindee fi waaye yërëm gu mu yërëm ñi ni nga xam ne dañoo nekk Touba di yaxantu waaw d'accord nee nañ Touba amul usine marché bi rek la am waaye sëriñ bi ku ne xam na ne na nga nekkee sa kër di fa dund organiser sa kër ba nga xam ne du am débordement wala dara du am luy gaaw a yàqu buñ ko jëlaale woon indi ko ci biir marché bi problème du am waaye képp ku nekk ci biir marché war ngaa xam ne ab tali kenn du fa jaay ab tali kenn du fa jaay war ngaa xam ne palaasu jàmbur bu nit jël fay ci ay xaalis bu dul jeex wala deux cent mille wala trois cent mille ngir yaxantu nga ñëw nekk ca kanamam loolu xam nga ne mett na kon ku ne ngi yoreel àq sa morom ma yaakaar ne bu fekkee ay tàkk-tàkk dafa am di yàgg di am kan mooy responsabilité bi Cheikh Mamadou Mountakha kon nag kooku dafa war a jël responsabilité ngir lépp ñoŋu te boo xoolee euh, responsabilité bi mooy dëkk bi ab dëkkam la dëkkub sëñ Touba la titre foncier bi titre foncier bi sëñ Touba képp koo xam ne ni sëriñ bi wax na nag neexu la la nga war a def mooy dafa yomb da ngay génn ab dëkkam nga xooli feneen ndax yow patente bi nga war a fay fayoo ko yenn taxes yi nga war a fay fayoo ko loo am la ci ëpp yaa ngi koy def sa poos ki fi nekkal sëñ tubaa doon sëñ tubaa ne daa soxla ngay diingat di sikki sàkk yow yaa xamul sa bopp yow yaa xamul li li la sëriñ bi defal waaye sëriñ bi defal na la lim la war a defal lépp mooy yaa ngi ci ab dëkkam ndox maa ngi xelli bis bu set ngay fan sangu te fayoo ndox xamoo fa mu jóge lépp mu gàlloo ko ngay tëdd tëdd woo xam ne ëpp ci yenn coono yi dundoo ko ci yeneen dëkk yi boo jamono dañuy jànkonteel loolu lépp nga am ko delloo njukkal sëriñ Tuubaa loolu sëriñ bi daanee dama bëgg wax ngay dingat ay waxam walla nga ay sikk sàkk moto doon bokkoo ci waa kër sëñ Tuubaa te it bu fi sëriñ Tuubaa nekkaat woon day mel ne kon bu waxee nga nga nga sikk sàkk ci ndax ñun idéologie bi ñu yore ak euh, gëm-gëm yi mooy ki fi nekkal sëriñ Tuubaa waxee rek ñépp ànd ci kon nag man de gis naa ne am na lu ma ca neex lool mooy nag doonte liggéey boo gis man naa am ay erreur ndax mooy mbooloo moom fu jógee état bi li muy rëy rëy bu ñu organisé dara da gis am erreur bu ci am boo xam ne xëy na ña xamut koy def waaye ñii nga xam ne sëriñ bi ñoom la denk liggéey bi muy muy muy fali yaakaar naa ku leen xam-xam ne ci defar ak leen yàgg nekk te it gëm naa ne euh, sëñ Muntaxa ku ku kiimaane la muy mel ne ne yoon yu mu jël mel na ne bu yàggee lépp dana baax dana jag ndax philosophe bi mu njëkk andi mooy jël jël jaay njureel gi jëndee koog taalibe bokk ci waa kër Seex ñëw xam la sëñ tuubaa defoon ci Seex Ibra ak na Seex Ibra jàppe woon sëñ Touba nga xam ne yemale wu ko dara mu feeñalaat Baay Faal yi mel na ne nga xam ne dëgg dëgg Baay Faal yi Seex Mamadul Muntaxa da koo sulliwaat ñëw woo woote fi bisub xasida murid yëpp kontaan seen xol sedd mu woote waat bisub Seex Ibra ñu dox yaakaar naa mu jël liggéey bi teg ko ci loxol Baay Faay boo xoolee gaar bu ndaw bi liñ fi doon toj mu war nañ suñ mbokki am mbilaa yi nga xam ne ne xëy na doole ji matiw wallaahi laxasim ñun sëti sëriñ Tuubaa yi billaahi la si boo ubbi suñu xol bi buñ sañoon murit bu ne amee xewal buñ buñ sañoon murit bu ne nekk ca la nga war a nekk waaye murit bu ne bu gëmee ne liggéeyub sëñ tubaab bi yow yow sa jëmmi bopp yaay ki ko war a régler yow yaay yaay ne dëkk bi mu war a mel yow yaa yow yaay yaa yaa war a jiitu loolu buñ ko jàppee rek du metti déplacement metti na fekk say bagage jël ko metti na waaye nag boo xoolee it sëriñ bi dafa teeloon a wax yaakaar naa ñu wër ci dëkk bi ñëpp dégg nañ ko ne daa am lu ñu yeesalaat lu ñu defaraat ci dëkk bi ku nag na nga xool yow ba nga la fa nga samp ak la nga def ba xam ndax lu méngoog yoon la wala niñ ko nattee ci dëkk bi la nga dolli ndax yoon la am déet ku ne xool ko ci dëgg doonte metti na nag nga xam ne ni Euh, place place yi nañ ko bëgg a amee amee wuñ ko waaye ku ne xool fa xam fi na la toxalee ndax yoon la wala du yoon rek boobaa dana woyof ndax dañ cey dégg gone yoo xam ne nii seenub seenub yar des na ndax dégg naa ci koo xam ne nii ab théâtre kat la donte waxut wax ju garaaw waaye nag ñam dendal ba mu waxee ba noppi ka wax dane daa wax ba noppi ne amul sëriñ amul nangam wax wax ju ñaaw koo xam ne ñu ngi koy ñu ngi koy wër gëstu ko ndax it bëgg nañ yoon waxloo ko lu tax mu wax wax ju ñaaw jooju ndax dëkkub sëñ Touba la borom li mu fi bëgg rek ay am te waa Kër Cheikh Ibrahima it la ko jox. gaar bu ndaw boobu bañ leen ko joxee moonte ñenn ñi nga xam ne ne seenub liggéey daa daa tuuti sax te ñuy yaxantu am na ñoo xam ñoo leen ëppale am na ci koo xam ne naar lañ koy waxuma naar Cheikh Fall naar ab itaasam lañ lañ lañ dindi xanaa toj ko boole ko bokk na ci moom daa àndoon ca <laughs> ñay toj alal dafa soxla sax ci nit waaye xam ne ne eh, lu ne rek ak fa mu war a ne te xanaa wax dëgg yàlla sëñ tubaa ko war a gën a lépp ndax sëñ Tuubaa ba muy fàkk fii kenn nekku fi dane woon windewu pël ak saawas nag la fi fekkoon di daw nit ñi di daw li nekk ci loxol nit ñi kon sëñ Tuubaa alal andiku fi woon day mel ne nag ñun buñ sëñ bi waxee ñu contesté mooy dañoo jiital suñu xoli alal moo tax fu sëñ bi waxee alal ja la ñuy xool ba fàtte sëriñ bi ba wax ay wax ju ñaaw di ci jóge ñun nag du yàlla bu ñu bokk ci ñooñu nan nañu bokk ci ñi nga xam ne ni sëñ Muntaxa dañ koy sagal ma noppiit sëñ mun Muntaxa dañ koy war maal sëñ mun Muntaxa dañ koy delloo njukkal ndax ku ne ci kër gu ne rek jëf na fa jëf joo xam ne war na war nga ko delloo njukkal kon ñun yàlla buñ bokk ci ñi nga xam ne alal da leen ni muur seeni kanam ba duñ bañ fàtte sëñ Tuubaa ak waa kër sëñ bu ko defee na ngeen xam ne yërmande ji ci ñi ñëpp la nekk waaye nag defar dafa metti te boo defar léegi-léegi da ngay mel ne ko yàq waaye boo demee ba ab diir danañ xam ne lu baax rek nga ci bëggoon ndax ku xoor xar kanam kanamu dëkk bi fan yii xool na mel noon xam ne macha allah waaye nag balañ koo xam ñu demaat tuuti doog di xam ne liggéey bi Sëriñ Muntaxa bëggoon boo xoolee gaa guy mit la ay jamono du daral ga fa la nekkoon waaw léegi foofu danaa fa laaj dara jamono yom fi nekk bañ ko fi waaj a jege ña ña fa nekkoon luñ doon wax buñ ko jugee ñu torox yàlla daa bind ni wa ma min dabatin fil ardi illa ala llahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawdaha kullun fi kitabin mubin avant daral ga fa di fa nekk guy mit la dara nekku fa nit ña fa nekkoon nañ fa nekk ab diir bañ leen fay jëlee ñu jàpp ne bu ñu leen fi jëlee duñu amate dara déedéet yàlla doxewul noonu bañ leen fa jëlee yóbbu leen dindi nuñ defati day mel ne maanaam daral musu fee am ñan ña ña nekk ah, ndindi di fa liggéey saa su ne seeni teraanga ña ngi koy am di duggaat ci oto yi di ñëw ci biir dëkk bi kon ab dëkk boo melee boo mbëggee mu mel ne Europe mu mel ne Paris wala fu mu mën a doon ci organisation dañ koy doxal ci dëgg te yàlla tax ku xool marché Ocass boo fa rombaatee mbedd yi na mel xam ne nii la war a mel bu ko defee ñu am kerewaat ay marché ni ko sëñ Abdul Karim waxee ak Cheikh Mamadou Bachir dem tibb ca suufus marché Ocass bële xëpp fa ko dem xëpp ko ca marché bañ bëgg doxalaat manees na ko tuddee marché Ocass 2 marché Ocass 3 ndax lu Cheikh dul faadal tudd laal ko ca day am barke nañ dem tibb suufus marché ba yóbbu ko ci yeneen marché yi tuddee ko marché Ocass 2 ak marché Ocass 3 ba nu mu war a demee ndax Ndakaar boo fa demee am la ay aslem aslem ay marché marché fu ne nit ñaa ngi fay yaxantu waaye lu tax ñu gëm ne marché Ocass rek mooy moom moom fi lañ war a ñëpp war a yaxantu takaar quartier yi bëri kon foofu lañ war a xalaatee xam ne sëñ Mountakha lu baax rek la bëggal murid yi te wax dëgg yàlla ko xam jëmmam xam li mu daj xam ne sonn na te suñ coono bépp ñun murid yi tax kon waa kër sëñ Touba nañ ko ci dimbale ndax ñun sunu bopp sunu classe gi nag laay wax ñu ma ko sañ a wax euh, day am na am ñoo xam ne euh, ngurumtul yi ñu ngurumtul ci néegi euh, na ma yàlla du ci néegi sax waaye ci suñ suñ suñ werandaay day mel na nag bu ko ñenn ci taalib yi déggee ñoo koy jàllale te ñoon liñ idéologie bi ñu amoon rek mooy sëñ bi bu waxee amatuñ xalaat ni ko Baye Fall yi defee Baye Fall yi moom li sëñ bi wax rek Baay Faal li sëñ bi waxit ñoom boo xoolee xëy na rax dana ci am ndax xëy na nee nañ amoon na ci marché bi ndax Baay Faal yi dugg kuñ foon waaye li leen sëriñ bi digal moom yokkuñ ci wàññiwuñ ci te boo xoolee lu mel ne garib niimaa yi bëriwu na ci dëkk solo si bëriwu foon waaye na ngeen xam ne booloo naatal Tuubaa mi ngi ñëwaat ci dëkk bi kon dindiwuñ garab rek ngir bëgg a yàq waaye dañu defaraat boo xoolee boolo booloo naatal Tuubaa dana indiwaat ay garab yu yees yaakaar naa sëñ bi wax na ko si dañuy jëmbataat yeneen garab yu bees yoo xam ne dana méngoog jamono garab yu rafet yoo xam ne dana gën a baax ci dëkk bi bu ko defee danañ cee rabaat ay marché nit ñi am gëm-gëmu ne marché bii ñu nekk muy marché Ocass yeneen marché yi ñu créé waa tamit xéewal dana fa am barke dana fa am muy marché Ocass 2 marché Ocass 3 yi ñu ko war a yi ñuy war a xelaat ngir bu fekkee barke rek lañ ci jublu waaye ñëpp nañu dal delluwaat seenum xel ña daa wax wax ju ñaaw ci sëriñ si wala kilifa yi sey nag mujj nañ gëstu ñooña mujj gu rafet amuñ ko ci dëkk bi dëkkub Sëriñ Tubaa la dëkku bàyyi kenn Sëriñ Tubaa daa xajal ñëpp ñi ñëw fi ba xéewale yaatu buñ ko delloo ci Sëriñ Tubaa buñ xas waa kër Sëriñ Tubaa yi waaw buñ ko delloo ci Sëriñ Tubaa buñ buñ ci xas waa kër Sëriñ Tubaa gi metti na xëy na sunu kalaas nga xam ne ay ndaw lañ ñu ngi dugg ci biir ruq roxaane xam nañ yenn wax ye yenn détails yi ak yi nga xam ne nii xutu tudd waaw ña nga xam ne ni eh, ñun ci liñ war a roy ñooy nekk bitim réew nga xam ne ay taalibe lañ bëgg sëñ tubaa bu dee ci gisinu gisin wi ñu gisin ñun ñu ne moodu moodu ya nekk Touba kat ya nekk bitim réew kat ni li ñuy sore sore sëñ tubaa ci gisin waaye seeni xol jege nañ sëñ tubaa ndax boo ne euh, euh, hôpital Janatu sa xel ci ku ñu mi dem hôpital yi hôpital sa xel lu mi dem mooy waa Italie wala waa Espagne kon ñu nit ñun ñi dëkk ci dëkk bi muy biir dëkk bi wala muy marché Ocass bu mën a def noonu dañoo war di nag it faaxee li ñuy liggéey it ñuy fexe ba ki fi nekk Sëñ Tuubaa di ci gis boppam bu baax di ci participer bu baax a baax waaw donte mi nga amit waaye du tee booy dagg nit ki it da nga koy da wax loo xam ne ni dana ko mañ a jariñ ngir soññ ko rek donte xam nañ ne ñu ci ëpp ñi ngi ñi ngi yaxantu di di sonn ci mbirum sëñ waaye foo xam ne yow la nga war a fay fayoo ko yaa ngi am sa tiraanga del fàttaliku sëñ Touba di fàttaliku ki fi nekkal sëñ Touba ndax ñun euh, suñ gëm-gëm duñu xool nit ki ki fi nekkal sañ tubaa taxawaay bi mu nekk si jëmmi sëñ Touba lañ koy xoole kon ku ko ku koy jéem a tuutal ñun xoolatuñ li nga am ku ko yëkkati ñun boo ñu joxutoon dara it jàpp nañ la suñu biiri xol kon yenn gone yi nga xam ne euh, am koomum àdduna lañ topp bay waxee nii nañu xam ne xam nañ leen te ñun ñoo jamono nag ñoom jamono ñii suñuy xarit lañ ñii suñuy wëllëre lañ war nañ ñi ci rus war nañ buñ jiital adduna wala li àllali adduna ba tax ñuy wax wax ju ñaaw ji ñuy wax loo xam ne nii kuñ ci xàmmee archive dana ko nettali te dëkkub sëñ Tuubaa yi nag ku bëgg loo xam ne nii maanaam ko koo xam ne ni yaa ngi fi doxee noo xam ne nii nii sëriñ bi doxee neexu la dafa am lu yomb demal ndakaaru rek nga jël fa kantin ah bañ jàpp la ba fay la patante xaw ma patante lañ koy xaw ma fay la nga fay droit droit yi nga war a fay yëpp boo ko defee ñaari weer ñëwaat Touba ba xam yow sëñ Touba de jiir na la teraanga wala jiwu la ko léegi-léegi nag nit ki dana am lu mu xamut ba doxee nu nu mu ko neexee loolu nag it maa ngi ñaan képp kuy sëtub sëriñ Touba na nga am lay nag képp koo xam ne yaa ngi dox nu mu la neexee ci dëkk bi it nga taxaw taxawee yow it jéem koo faj na nga ko war a mën a fajee ci jàmm ak salaam ndax it waruñ ñoo ëpp la ndax lii ci suñuy loxo lay mujjee moo tax ku fi wax sunu kilifa ki fi nekkal sëñ tubaa wax ju ñaaw it war nañ ko mën a jëm a fajal suñu bopp faj gi nag mooy doo dem di di toroxal nit ki ndax sëñ Tuubaa du toroxal doomu aadama waaye na nga wax nit ki ba mu xam ne mën nga ko faj nanga ko wax ci njëkk ak teraanga ngir laabire ko ndax wax ju ñaaw moom dëkkul fa mu jëm fa mu jugee rek la dëkk kon nit ki mooy jéem a wax lu bon ba ba ba weeroo ca rek bañ xamee ne kon nii la mel ak pas-pasam ci sëñ Tuubaa nii la mel war maa daal waa kër sëñ Tuubaa yi tey jéggalu bu baax nag sëñ tu sëñ Muntaxa lim ñu lim ñu ji ñun murid yi loolu rekk laa bëgg ñu xam ko ak li mu daj ak li mu sonn ñu fay ko ko ngir jëmmi sëñ Tuubaa te ñun waa kër sëñ Tuubaa yi ñoo ci war a njëkk muy lu mu wax ñu ànd ci sagal ko jàppale ko ngir yàlla ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam te xam ne dafa sonn na ci lépp def na li mu war a def université bi ku ko def kere xelaat xelaat bu rëy bii indi ko ci dëkk bi muy xam-xam te xam dañ xam-xam moo yore moo yore lépp bu xasee def lu mel noonu rek ñun wàccu woon ak ñun waaye lépp luy sagal ab jullit def na ko te yëmaliwu ko ci murid di rek mooy fépp fu nit gaañoo boo xoolee it eh, jamono yi nga xam ne ni affaire xeex ba yow yooyu fi amoon ñi ci gaañu ñëpp ku ne daa yëkkati am lim jox ko is bu tarxi yi ñu dem yóbbu fa kon moom dafa njaboote ki njaboote nag di def li mu war a def ñun ñoo war a nekk it ca lam war a lañ war a nekk jàppale ko ci muy fu ñuy waxee loo xam ne waruñ ko wax ñu défendre loola ba nga xam ne du nii tey fu fi ñu suñuy keppaar buñ nangu kenn di fa ñëw di fa di fa yoon yi wala nga fay yàqe ki fi nekkal ke sëñ Tuuba loolu moom ñu nit dañ ko war a xeex bu baax waaw ndax képp koo xam ne yaa ngi xeex nit wala yaa ngi wax ci nit loo xam ne euh, ki fi nekkal sëñ Tuuba ngir ngir wax la la neexit bis bu sax ay ñëwee wala yàlla cëral la nanga nga bul bul ko nit ñi gantale it nanga xam ne yaa ko leble kon nag ki fi nekkal euh, Cheikh Mamadou Mountakha yoro kaddu yi mu Cheikh Mamadou Bassir saa su waxee ñu ña démentir wax ja di ko waxee nam ko neexee daa bëggoon a contour sëñ Mountakha xamul noom koy contouré mu jaarale ko ci moom ndax moom day toog ci wetu sëñ bi ne sëñ bi nee na nangam ak nangam kon nag ko ne na nga jàpp ci la nga war a jàpp te jàpp ci liggéey bi nga xam ne teg nañ ko ci loxol waa kër Cheikh Ibrahima loolu lu ma neex la lu sedd sama xol la loo xam ne maa ngi ñaan ci maa ngi ñaan ci baaxu sëñ Tuba Cheikh Mamadou Mountakha yàlla nañu suñu borom fayal ndax euh, sëñ Mountakha ku ku ku ku la ku ku ku ku doy waar la ndax da ngay xool cër bi nga xam ne ne Serigne Touba joxoon na ko Cheikh Ibra addunay dox addunay dox ba liggéey bi ñëwaat delluwaat ci loxol Cheikh Ibra lu kiimaane kiimaan la man nag borom xel yi laay waxal ñu xelaat ci. ñu xool biñ tegee lox euh, euh, liggéey bi ci waa Kër Cheikh Ibra ak léegi nu nu Tuubaa tàmbale mel yàlla na continuer ni ci barkeb sëñ Tuubaa muy nii ñu yaatalee dëkk bi seetal ko wicc yàlla na am suufi nga xam ne loolu lañ ciy ñaan mooy képp ku nekk ci wetu sëñ bi rek ak képp ku koy conseil rek ak ñi ànd ak ci liggéey bi rek nanu fexe ba sunu mbokk Baay Faal yi nii ñu yaatalee dëkk bi rafetal ko ñu joxaat leen ku mu am suivi ñu am toppatoo nga xam ne liñ xas du amaat kuy def lu la neex defaat waaye muy am ñoo xam ne seen loxo lañ koy teg ah, nekki niñ jëmbate woon garab yi teg ko seen loxo ñoom lu lu lu laale ci Seex ra wala lu bokk kër sëñ Seex ra lu ci waa kër sañ tubaay yi dénk seenu mbir du yàqu te loolu xam naa ne xamuñ ko woon te loolu Seex Mamadul Fadal won nañu liggéey boobu dangay ngay xool làmp fal foo mën a tolle booy dugg tubaa lu bële la ngay njëkk seen <laughs> loolu rek misaal la yoo xam ne sëñ Muntaxa la kenn xamut lu mu doon te loolu sëñ Touba seere na sama xol laa koy waxee kon boo xoolee liggéey bi garab yi nga xam ne mooy garab yi yi nga xam ne joxoon nañ leen ko ñu jëmbat ko anam loo ci gis boo gisee doo doo fekk ak naataa nga am ci ndax ñoom ñuy def sëñ Touba leen ci jiital ak seex ma seen maam ju baax kon maa ngi ñaan nii ñu ko tàmbalee nañ leen ko bàyyi ñu eggalee lépp te mu am suufi ndax jamono yi seex moo seex sidil maxtar am na luñ ci tàmbale woon waaye comme xëy na nit ñi dañuy bàyyi bu dara ne tekkaat ñu ñu doog di defaat lañu ñu war a def naa am suivi ngir euh, tayit ñëpp yem ci muy Ismaayila mii nga xam ne ne bu doon sama kër daa am luñ ci war a dindi na ñëw dindi ko nga xam ne duñ ja duñ duñ jël kii bàyyi kay na ci ñëpp yem waaw ndax day am ñuy bëgg waxee noonu fekk ñàkk a xamata am na ñoo xam ne dañu gaaw a jàbulise ñu ngi ko ciy dégg waaye nañu xam ne li see waa kër Seex Ibra yore ñëpp a ci yem muy Ismaayil ak muy keneen ku mën a doon na ci ñëpp yem li ñu war a dindi daal te du yoon nañ ci yemale ñëpp te noonu la noonu rek lay demee kon na am suuf ci garab yi nañ leen dënk lépp ñu yore ñu dëkk Sëñ Tuubaa bi dana dana jaaru yoon loolu daal man gis naa ko bu ko defee sunu mbokki waa marché di leen gën a dolliwaat ne leen ñu ngi leen di masaw ndax am na lu takk daw am lu tàkkaat rek ñaari yoon yàgg takk alal alali jàmbur ci yàq kon nañ dawal compréhension wallahi alxasim buñ sañoon képp ku dëkk Touba di fi yaroo ay xéewal ngay am saa su ak jàmm kon nag yàlla na ngeen am xéewal tey it yi xéewal yooyu loolu yéen am it ki fi nekkal sëñ Touba yàlla na ci bëgg moo gën am xéewal yoo xam ne nii ki fi nekkal sëñ Touba bëggut na ngeen ko amee te loolu mooy lan mooy marché bi rëbëjoo pëccëxoo ba saa su ne alali jàmbur ji yàq kon ku ne bu dawal compréhension rek ku ne la nga la nga war am ak faw nga war a yem nga yem fa jàmm ne ñu ngi ñaan ñu lëkkaloo ñu ñëpp ànd liggéey dëkk Sëñ Tuubaa ba mu am xar kanam gu bees kon yàlla na yàb mu yàgg wasalaamaaleykum wa rahmatullah